sama tur euh, Mouhamed Mouhamed Niang euh, maa ngi nuyu coow li Sénégal mais tey làmb ji nga xam si moo xew fii euh, le 19 dimanche vraiment tey défection bi ma am naqar bu ma am lii musuma ko xam musuma ko gis tamit parce que lu mel ne mbër mi nga xam si mooy booy Niang Tapha ñëw jàpp ko ak supporters yi indi tey ñu toroxal ko toroxal goo xam ne si muy génn saako yi man daal loolu vraiment métti na ma torop torop torop en tant que doomu Pikine métti na ma waaw ñun daal benn mbër la ñuy am mbër mu ñu am ñun xam nañ ko muy Ama Baldé moom nañ fi am waaw mais tey boo ñaa tey gàcce gëm ñu teg ci digg Pikine tey lii moom musul ma ko gis ma parce que muy daw te Tapha Tine booy xool mag la mais boo ñaa tey moo gën a nekk si si ci ci ci combat bi pour mën a daan li nga xam ci mooy mbër mi mais sax mais yow boo mënul daan mbër mi mais defal fulla ak fayda nga toog xam nga jël sa engagement taxaw bañ a reculer wan fan wan fan yi tey kat nii laa mën mais di daw di daw di daw kon non vraiment tey moom sama xol meexul tey moom waa pikin gépp am na lu leen naqari ñun daal nañ jàppale ama sa kanam làmb ji di ñëw ñu xool ba xam nan lay demee en daal yàlla may ñu si ndax bu ko defee coow li mën a fay ñu am suñu naqar mën a day Abonnez-vous, ciao le Sénégal